ngeen toog seere li nga xam ne ñu ma seqal war a wax ñoom maa ngi koy wax ak ñoom ngeen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax li may jëkke moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatiwu leen lu may fasjudu lillahi wahbudu rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëkk loola rek a leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen ni seenu pay de moom awu ba seenu cantit lott naa ci waaye yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci dimbali ma nuyu sa sama bokki taalibe yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg weesu Sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amuñu lenn lu ñuy daariloo mën caa teg baaraam lu dul Sëriñ Tuubaa bala maa waxtaan ak yéen dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na leen ne yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yawma hisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonteeg li yàlla santaane def ko góor góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defe na sell te li ci ngeen bañ koo yàq ndax yàq kat yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ne buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla da koo tere ba noppi bañ ku bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenu yàq nawet bi mu ngeen ko jariñoo ci ni ko yàlla santaane génne ak yàlla ji li ci des ngeen téye ko te bañ koo yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu deetee def da leen di gën a dimbali loolu laa jëkk bëggoon a jëkk waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ci jóg gi ngeen jóg yéen ñëpp bàyyi seen yitte ñëw fii ngir bisub sëriñ Tuubaa bi kenn ku ci nekk la nga man nga def ko ci loolu mënuma lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan léegi damaa bëgg mu wóor leen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 yàllante nag nga xam ko mbay wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal àddina di ci jóge ngir àddina ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla lu am lu ci yàlla santaane wabtaxi fii maa aataaka allaahu daara laaxirata loolu la suñu borom wax loo am sàkku ci sa kërug sa kërug àllaaxira wala tan sa nasiibaka mina dunya secteur ci àddina it bu ko fàtte kon nag kuy wax ku nit war leen wax lu leen di jëriñ ci àllaaxira war leen a wax lu leen di jëriñ ci àddina kon nag ma leeral leen ni leen doomu aadama yi ñuy bari bari yu jëkk yi ak yu mujj yi ak ñun ñee ñeneen ñii xalaat bi ci ñëpp yowmal xiyaamati kenn ku ci ne danga nga wéet ak yàlla ba mu defe ba defee ne yow dong la sàkk loolu yàllaa ko wax wa kulluhum wa aati yi yowmal xiyaamati fardan wax na it ginnaaw da ngeen di ku ne dana dikk fi moom nag ku ne nag la nga indi aale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yóbbaale ak tooñ jahannama ma la la yóbbu wa man yaati si moom naan xar amila saliati koo xam ne yóbbaale nga fa ak gëm ak jëf yiw fa in fa walaayika lahum darajatun ula rek la leen di defal daraja yee gën a kawe kon nun murit suñu gëm yàlla ak suñu jëf jiw lépp dellu na ci Sëriñ Tuuba la lu wéeru na leen wóor cëng ne Sëriñ Tuuba la nu jaayanteel sëñ Tuuba la nu topp Sëriñ Tuuba mi nu topp nag ku topp ku topp ci moom ci yonent bi nga topp danaa joxe li ko waral ku ku jaayante moom it yonent bi nga jaayanteel te ku jaayante yonent bi yàlla nga jaayanteel ina lisini yu bàyyi noonaka inama yu bàyyi noon allaha man it ci ni rasoola faxadaataha allaha kon nag diggante sëriñ Touba ak yonent bi laa bëgg nu waxtaan ci diggam ak yonent bi defut loo xam ne da koo da koo gonte lu mu xëyee rekk la ngir moom bi mu amee ab taw moom la ko tudde muy Serigne Mouhamadou Moustapha bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Fallou bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Mouhamadou Lamine bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Mouhamadou Bassirou koo xam ne koo jur tudde ko ko nag wóor na la cëng nag keneen amul ci yow objet loolu kenn nattabliwu ko jox na ko léppam doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom Sëriñ Bamba Sall la tuddan Momadou Bamba lañ ko doon wax ci ak ndawam ak daana ko sax ak di bind Momadou Sall mu xëy ci ama wasa si wax ne mayetuma kenn ku ma wax ak yi Momadou Bamba bis naka tey sama digganteeg yàlla وسط بكون حامة عبد الله xaddima abdillahi yaa ilahi yàlla seeraloo naa ne la bisum tey def naa sama jëmm ak sama tur muy jaamub yàlla donc boo xam ne bii nag la jël jaamub yàlla bu mag bi jaamub yàlla bu mag bi tax nga wax fa awfa ila abdihi ma awha tax nga naan subhaanalla fi asra bi abdihi leer muy rasulullahi loolu rasulullahi di koo xam ne ku ñëpp di liggéeyal la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 daani ilaa mati nabi hubbu saati liggéeyal gi mu koy liggéeyal gi mu koy tagg ji rek la dara doolu loolu it na ko ndax bi na ne mahat mahabbati yal muxtaaru sayiduna kubbil maxaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fida ulahu xarban xadiman lahu muskaani li sanada loolu ko ko bind deseeloo kooka len kon seene ci yonent kon bi jamono yonent bi natteeb li wunu ne ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp ma xamal leen nag ne leen murit ci boppam nag moom moo amut aw tur rekk la loolu na leen leer murit aw tur la sëñ Tuubaa mooy jëmm ji tur wane jëmm lay wut lay woo koo xam ne bi nga ko jàppagul doo tudd murit boo ko bàyyee doo tudd murit bu ñu la dee wax murit moo tax loolu kenn nattabiliwu ko kon nag mu leer leen ni leen li mu jëflanteeg taalib yi lu lu leen war a leer la lu ngeen war a xam la dafa wax ne moom de fab mbooloo tofal ko nit li muy def ci nit mbooloo topp ko bu ko defoon ci garab nit ñi dëkk wër ko te duñ fa jóg li muy def ci nit toppees ko itam def ko julli ñaari raka moo ko ko gën a jafe kooku kon mel na tam doon lëggeel dëpp na dëpp na ko kàttan te loolu lu ciy firnde moo di dëkk murid boo gis ci àddina moo ko sanc ndax moo joxee tur moo jox kooku suuf ne ko foo bëgg mu yàgg fa yeggale ko fa ñi ñii dañoo far bi fas takk ko yónnee xeb la ko nañu yóbbu ca suuf ñi nga xam ne ñi seen xalaat yëggul foofa ñu far ko suuf ci seen bëj am na ñoo xam ne suuf sam leen jox dañ ko denc ne dañ bu jëndee yóbbaale ko waaye benn murid bu dëkk fenn bu ko ndigalam dëlul foofa amul kenn ko topp kenn koo xam ne du sëñ Tuubaa tax mu topp ko ko amul loolu na leen wóor yàlla def nag bi loolu amee kon nanu waxtaan ci digganteem ak àddina àddina yett rek lan ci gisan mu jite woo ko amutub yenteel taalibi yi ko topp te yaakaar ko te muy dëgg ci ñoom ko mu ci ma sa toogal won na la ci boppam wan la ci sa digg yàlla wan la ci sa bopp lu tax bëggatoo di kenn ban taalibe bu bëgg di moroom ma amut ngir la mu la mu xam ci sëñ Tuubaa mu xamal ko ko ak la mu ko won ak la mu ko dal bëggul ci moroom loolu wóor na ñëpp kon nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa morom te la mu la won moom nga gis ba tax na bëggatoo ci kenn kooku kon won wane na ne liggéey ci taalibe yi moo doon wàllam li ci daal mooy alxuraan alxuraan dafa wax ne yowmal xiyaama ci ku ne sa pàgg yëfu àddina dañu koy indi jóor ko nit ak jinne ak malaayka ñëpp gis ko ba ma xamee loolu laa def alxuraan muy sama paggutéef moom mu jóge ci yàlla jëm ci yonent bi te jëlu sat loolu moo waral mu daa ko bindu di ko jàngul dëkk bu mu mas a nekk ci àddina kaamil bi bu ñu xëyee jàng ko yaar yoon bu ba tege ñu jàng ko yaar yoon fu mu mas a sañ ci loolu lañ fay def banjaare bi ngeen loolu du fa jóg tey jii Touba ji juróom-ñaari jàkkaa ngi fi yoo xam ne jàkkaa ju ne bés bu ñu ne fi fi jàng ñaari kaamil yu suba ak benn bu tisbaar ak bu takkusaan jëndagul te dëkk bi lee mu am téeméer rek waaye loolu jëndagul loolu kon won na leen ne moo séddoo alxuraan mel na it nag ne <coughs> séddoo ji mu séddoo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp ngir toog ne fii benn taalib bi ci taalib yi xam na turam xamu santam xam dëkk ba mu bind ab kaamil wutal ko jëfira am ko ci malaanum séer jox ko kenn ma sa gis mën na ko mën na ko ci loxoom lenn lu lu kaamil lu ko nit ma sa jox tegal foofu la lay wax nit sax mas naa ñëw jënd pañab gura jox ko mu ne ko looy ci jublu mu ne ko damaa di gën a bëgg nga guro mu ne ko yóbbul daal di wër lu kër gi ni fu fi guro nee nañ ko génnee man di suma mandargal ci bëgg daral dul yàlla yonent borom kaamil boobee dafa dafa tàllal kaamil bi sëñ bi téye ko ñaari loxoom ni ko ah yow de si kaamil bi wow na lool fa farixan kastatum ji ci suratul baqara rek nga fàttee sadda wallahi xasim bañ ko ubbee noonu la kon ngeen xam ne alxuraan la fi nekkoon ci àddina benn li ci des na muy tuubaa gii nag tuubaa moom juróom-yaari at la fi dëkk ñu jële ko fi dellu si at wi fi ba wuy ji waaye diir bi li muy nekk ci àll bi mi ji waltu ko mil maana waytu lata tuuba la fii bi ka tuuna fii ka budyaana mi ngi wax yesiru jox yi di tuuba wax mi ni wax ni asawara waltu tibli sama iskaan ku mu juri fi la fi la la nga yaroo fi nga jàngee fi la ñëppam dëkk waaye nag tubaranke gone day am na ci dëkk bi ndax man mi di atum kayit ga fi ñëw ba léegi fekk naa fi ci sama bët bu nit dee jàpp ay ay ndongo di ko taatan di ko naan ngir ngir ñàkk ndox fekk naa fi bu jigéen dee sebati ay ndongo di koy wër di ko ñaan sebat na ngir bëgg koo naan mun naa leen du ma leen mën a jox lépp ngir dama ciy wëgg sama xar loolu fekk naa ko ci Tuuba ji toog naa ci Tuuba guddi du ko sàkk lenn lu may wax day daw yooxu ne daa jom lenn luy leer day su ko gis loolu loolu fekk na ci Tuuba ji ab sañc nag balaa ka juddoo ci sëñ ba mënut a xam na nee xeetu sëñ ba mel waaye ka bàyyi koo woon ca gent ba ñëw ci sëñ ba di lu yokk ci sëñ ba xam na ko léegi ko sëñ Touba noonu fonk ci njabootam gi doon dëkk dëkk li mu fi ñibbi si si ñëpp a ne fi gisuma gisuma ci dolliku ci biiru moomagul suñu bopp lenn ndax gis naa rek weesu wutan di village yi fi dëkk xam naa fi jaraaf yi ñu kootar mbët sow ca mbët sow moom tudd laa ko fi tegoon xam naa fi jaaree af ji mbaar xam naa fi jaaree af ji mbaar boobu ma xam dëkk bi su sopp waaye loolu lépp sëriwut nag mooy wax ne kataballahu tabaraka wa taala ana dawlata nasara intaqalal huna min aydihim ila aydi xayrihim nu di ko jàng di ko gis mu noo xam lu ñu fi moomeelu nasaraan yi dana toxoo fii ci seen loxo nekk ci yeneen i loxo xamul woon ñoom tey nag bi réew mi moomee boppam ñaari présidence yi amagul ci li ma gis bu jëkk bi li mu def ci dëkk bi gis naa ko ndax kàntongu kayel ak kàntongu laa ñooy dëkk bi département yu léegi am département lañu ko tuddee am na fi ñaar fukki at def na ci ñaar ci forage kon mel na ne at mu ne forage la fi def gannaaw boobu fi bàyyi ko ki ko fi wuutu juróomi yaari at la fi amagun dolli na ci fanweer ak benn ci lu ma wóor ku mu neex booy boo ñëw sama Tuubaa ji itam man du ma wax lu ma lu ma leer rek laay wax ab forage trafic su ñu jëlee ko fi ak um marché léegi leneen lu fi ne ki ko fi def mosu fee taxaw ngir immigré dara kon nag buñ dee gor ñun ñi nga xam ne noonu la ko defal noo ko war a wax tey jii lu mu ko tudd nekk ci département bi. juróom-ñeenti forage gi ci biir bi yoo xam ne moo ko def ci fi bàyyi ko bi mu fi bàyyi ko ci wàllu kër docteur infirmier d'état la fi bàyyi woon la jëkk loolu bu fi neen masa gaañu am rat la dëbb rek tay ci loxom infirmier d'état bi moo fi mu jën moom la ñu wax ba mu ñëw fi jiilum ñaar fukki at fi ne kooku la fi def kii def na fi ab hôpital kooku ñu faj la ci tund yu yépp loolu jëf la ñu war a wax li ci dolli ku itam mu di wàllu làmp yi wàllu lamp yi yegg na ci téeméer ak ñaar fukk ci ay kilomètres yoo xam ne yi ay buumi lamp la ci ci dëkk bi li dalee Daaru Manaan ba ba Tuubaa bi loolu leer na man nañ kon nag jooju jëf ju set la te lu ci jëf sëñ Tuubaa lañ ko jëfal loolu na wóor ndax département bi moom dëkk bu ci ne amooris dafa dem sëñ Tuubaa jox ko ndigal moo sañ ci fa kër nekk fa kon nag lu ñu def ci département bi sëñ Tuubaa lañ ko def kon nag ma di leen xamal ne su fekkoon te woon ne doomu aadama mooy fal gu wóor di danaa leen wax leen nan ko fal te buñ ko folli waaye nag ginnaaw doomu aadama mu mënu ko yàllaa koy def yàlla moo ne allahuma maalikal mulki tuutil mulka man tasaaw wa tansihul mulka bi man tasaaw mooy buuru buur yi mooy jox buur ku ko neex moo koy jox moo ko génne ci ku ko neex ginnaaw loolu moom liggéeyu yàlla du liggéeyu doomu aadama waaye kon nag am na lu doomu aadama man carte yi nga xam ne war na koo soxla ci ñun daal ku ko ci moyaale wenn rek fa yóbbar ba loolu na leen leer dama ma leen yëgal ni murid buy waaxu soli daalam di dox rek ku ko neex di ku ko neex di sangam waaye murid bu ñu tëral ba ci man mi gën a bon neex may fikkiri ba dee murid dox waaye daal murid bu ñu tëral ci jat ko àllaaxira ku ko ne am nga sang bu dul sëñ Tuubaa waaw bu mënoon a jóg ñëw doon mën a jóge bu jógee du fa bu yàq des li fa dal ci sa kaw loolu kenn na fi sunu borom nag moo wax ne alxaqu min rabbikum fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur kon bu fekkente ne neex na leen gëm leen ku mu naqari weddil waaye yàlla day bi mu ko waxee ba àggal boo toppee fal yakfur jëleen ca teg yaakaar naa ne weddi du am solo boo ko toppee ba ci bii sa saabu wa saa at mur safaxan da nga xam ne mutu ko fal yumin ji lam ca teg boo ko toppee ba ci ni ma sawaabu wa sunat mur safaxan da nga xam ne gëm a gën loolu rek laa xam ci war lees ko wax gannaaw yàllaay fal buur daal li mu li nga xam ne noonu moo ci sunu wàll daal nan ko def bu ko bu ko kenn mooyal saw mu murid bu ko mooyal saw carte rek war nga sëñ Tuubaa loolu la li kon nag lii laa la doon seereloo maa ngi lii laa la doon seereloo ngeen seere ko lii rek laa war a wax ak ñi ma waxal doon leen ko jot di leen xamal nag ni leen indi ayu du la loolu na leen wóor sëñ Tuubaa liggéey na ko jëkk tey loolu man man naa koo xam am naa ci firnde yu ma leer yàlla na yàlla saxal ci jamono ci suturaal te musal nu te dimbali nu ci barke lépp ginnaaw waxtaan wu am solo wi Medoune fal ak délégation bi daal di dem ziare ji Serigne Abdou Khadir Mbacke jottali ko ak ngërëmu président Abdou Diouf ndokkeel ko ci màggal bi sàkku ci moom ñaar ba ñu berndelee délégation bee gan ñi ba noppi Medoune fal àndaat ak délégation bi ci bëccëg dem nemmeeku ji bibliothèque ba bu Cheikhul Khadim ñu fekk fa Aliou ndaw mu waxtaan ak ñoom ci néegu téere yi ni mu ñu ko defal woon sànq ñu génne fa nemmeeku exposition étudiants yi atu Diagne jëwriñ ji ànd ak ñoom faram leen pavillon yi foofu nag la ñuy tàggoo mbokk yi Moustapha mbaki Gueye doon leen jottali màggal bokk ànd ak yéen di ñaan yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi ak Serigne Touba mi ñu wéeru ci moom te yaakaaruñu dara lu moom mu yëwanal ñu suñu mbiri àddina yëwanal ñu suñu mbir alaxira xéwal yi tasaaroo ci biir àdduna si yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi